L'eau multimédia Qur'an. L'eau multimédia est spécialisée dans la vente et la prestation de services en proposant une large gamme de matériels informatiques, bureautiques, électroniques, réseaux, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société L'eau Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois. L'eau Multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous. Téléphone 823 81 87 ou 77 998 04 04. Service commercial 77 306 44 83 ou 76 637 45 45. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنو يبو باخم ينغا خمني نيوم نيو أندا أك نيوم تجوتا يو السلف مع القرآن mu nekk jotaayu majalis nga xam ne gën a yaatal daara ji fu waaye mën a nekk rek ànd ci ak ñun ñu nafar eh, lenn ci téere bi di alquran al karim ñu koy amee fii ci kër gi di la maison du Coran au Sénégal waaye di ci ànd ak sunu sponsor mu nekk loo multimédia di jaay lépp lu jëm ci électronique képp ku jokkoo ak ñoom ci numéro yii di daw ci suuf bu soobee yàlla di nga kontaan bu baax ca lanu lay jaay ñu nekkon ci jotay bi weesu adilla moy tektal yi nga xamant day wone alquran ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko dan bind sahaba yi lu waccan ci alquranul karim yonente bi dafa amon ño xamantene ñom ñoom ko doon bindal alquranul karim ñu andi ci juróom-ñaar ci yi nga xamantene mom moy wone ne alquran dañ ko dan bind ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak ñu wara waxtane kutabul wahya ñen ñoo daan bind li nga xam ne mooy waxyu bi maanaam alquran su wàccaan wa ya laha min mihnatin adima mécc gënta rëy loolu ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon bind waxyu bi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa am amoon ci saxaaba yi ñoo xamante ne ñoom ñoo ko doon bindal waxyu bi waaye ak lépp loo xamante ne moom la soxla woon ci rasail maanaam lettre yi nga xamante ne moom la daan bind wala aqd yi nga xamante ne daan na ko def muy bépp protocole boo xam ne daan na ko def ci walum état ak yu mel nonu amna ño ñoo ñom ñoko ko doon bindal borom xam-xam yi nag am wuté ci ñoñe ñan lañu ak nan lañu ñu toll leeg nga dégg wax ji yaatu ci lool waye comme que as-salafu ma qur'an jotay bu gàtt la dañuy faral di teunk rek la ca dess ñaare comme nima koy waxé dara ja lay léré ñu daldi wuté ci ñaata lañu am ño xamantene limna du len ba ag ci arbaa wa arbaina katiban maanaam lu tolloo 44 maanaam eh, ñeen fukk ak ñeent eh, mën naa am sabab gi tax ñoom ñu lim leen ba àgg ci foofe mooy que ne ñoom dañoo boole ña daan bind alquran ak ña daan bindal seen bopp ngir yóbbu seen kër yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo doon bind lettre yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo doon bind uhud ya uqud ya maanaam protocole yonent bi daan bind message yi mu daan bind ñoom jombul dañoo dajale ñëpp rek daal di leen limaale moo tax ñu daal di leen euh, bind ba ñoom ñu àgg ci lim googee wala ñi nga xam ne bind nañ lu ëpp loolu wala lim nanu loo xamante ne matut noonu waaye ala kulli xaal euh, ñi daan bind alquranul karim mën nañ leen tënk ci ñaar euh, am na ñoo xamante ci seen kër yi parce que nekkul woon taklif loo xamante ne yonent bi moo leen ko sant ne bind leen su ngeen pare ngeen andil ma ma daal di koy muraaja daanuñu woon bind rasmiyan maanaam ci officiellement waaye am ñoo xamante ne yonent bi moo leen recruté woon ñom lépp lu wàcc rek mom wo len ñom ñu bind ko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy murajaa ñom ñu daal di koy denc ci denc bu wóor ñoñe nak lañuy ñeek lim ñi nga xamne ñom ñoo gënon na siwe batu alladhina ishtaharu bi kitabati alwahy ñi nga xamante ñom ñoo ko dañ cey lim ka ci jitu mu nekkon abdullah ibn sa'd ibn abi sarh al alamiri awwal amiri man kataba li nabi sallallahu alayhi wa sallam bi makka abdullah ibn saad ibni abi sarh mom mooy ki nga xamante ne moom lañ cay njëkkalim mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxyu bi muy révélation bi ana muy alquranul karim foofee ca makka ndax jamono joojee ñi duggagu moon ci lislaam ña ca mënoon a bind bariwuñu parce que abdullah ibn abi sarh mi mbokk la ci uthman ibn affan kon bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yi moom mii nag yàlla nattu woon ko ginnaaw bi mu duggee ci lislaam bokkoon ci ñi doon bind euh, alquranul karim ci ginnaaw si nag mu daal di murtad maanaam fa azallahu cheytaan waaw cheytaan yi daal di koy tarxiisloo ba moom mu murtadoon génn ci lislaam yaakaar na leer na mu génnoon ci lislaam ba ci fatxu makka bi yonent bi dellu see makka pour daal di koy ubbi yonent bi boolewoon ko ci ña nga xamante ne daanaka daggan nañu rey leen waaye comme que mbokk Ousmane ibn Affan la Ousmane ibnu Affan daal di koy andi ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jéggalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal ko bi ko yonent bi jéggalee delloowaat ko mécceem muy mécceem mbind alquranul karim mbokk yi jàngat yi nekk foofu dafa rëy lool rawatina ñun Sénégal du ñu nangul nit tuub yàlla bi nga xamante ne moo bind doomu aadama moom ko mën ko nit day tuub charte yi su matee ñu am war am ci yow njortu ne yàlla nangul na la tuub waaye même su la ko yàlla nangulee ñun duñ ko nangu maanaam nit ki donte dafa def euh, léeg-léeg nga gis ko xam ne def na bàkkaar ba mu nekkee ndaw juum na ba mu nekkee ndaw waaye ba keroog muy bejjaaw nit ñi dañ koy xeeb nit mën na def ab njuumte waaye ak lu mu tuub dañ naan xanaa moom moo fi defoon lii bal sax léeg nga gis ñu dem bala ca gën a sori bal euh, njuumte boo xam ne sa baaya ko defoon ñëw dañ la koy xase waaye da ngay gis ñu gën a sori ñoo xam ne léeg njuumte boo xam ne sa maama ko defoon yow dañ la koy xasee yow mi tey ji ci 2022 kon mbokk yi lii jàngat bu rëy moom moo ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mécc mi nga xam ne mécc gënu ko rëy muy lu jëm ci alquran ko ne bind alquran kii def na njuum tey bàkkaar bu rëy mooy murtad génn ci lislaam waaye bi mu tuubaatee islaamam daal di rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ko delloo li nga xamante ne moom mooy lan mooy eh, mécc mi nga xamante ne moom mooy bind alquranul karim moom mu ngi génnee àdduna am sittin wa manam ci atum fanwer ak juroom ben bañu limé ci gadda gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam kon ka ci ndik nga xamne mom lañuy lim moy Abdullah ibn Abdullah ibn sa'd ibn Abi Sarh al Qurashi mom lañu ndik lim ka ci top moy Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib nga xam te ñëpp xam nañu ko mu nek saxaaba mu màgg boobee. bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu ca euh, l'islam nga xam ne mu bokk ci euh, qurashi ila hashimi moom euh, mooy ñaareel bi nga xamante ne dañ koy lim ci ñi nga xamante ne dañ doon bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii di alwaxya mu nekk ci bokk ci alxulafa u arrachidin bokk ci ñi nga xamante ne bindal nañ lu baree bare ci at tanzil maanaam mu nekk li nga xamante ne moom mooy waxyu bi ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu bindal yonte bi lu baree bare ci al uhud ak uqud ak uqudi sulh lu baree bare ci eh, xaatim yi nga xamante ne yonente bi daan na ko bindante ci ak yenn état yi wala yenn ngir yi wala yenn nit ñi lu bare bare ci yooyu Ali ibn Abi Talib moom moo ko bind nga xam ne moom mu ngi génn àdduna ca atum eh, ñeent fukk ka nga xam ne moom moo ca ñetteel bañ cay lim moom moo nekk Ousmane ibn Affan Ousmane ibn Affan ibn Abi al-As al-Qurashi thalith al-khulafa ar-rashidin moom mooy ñetteel bi nga xam ne dañ koy lim ca ña nga xamante ne ñoom ñoo doon bind alquran ca jamono jooje parce que Ousmane ibnu Affan moom teel na dugg lool ci lislaam moo tax da ngay gis ne al imam al-Dhahabi waxoon naan huwa afdalu man qaraa ala nabi sallallahu alayhi wa sallam moom moo gën wala bokk na ca ñi nga xam ne ñoom ñu gën ca ña jàng ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégtal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alquranul karim wa qad shaa allahu an yastaqirra almushafu ala hayatihi alxaalida ala yadihi radiallahu anhu mu daal di bokk ci xéewal gu rëy rëy boo xam ne yàlla defal na ko mooy kaamil gii ñu teetey ji mu daal di sax te wéy ci mbind ba nga xamantene mom la Ousmane Ibn Affan daan bind ci loxom mota ñu def ñu def ar rasmul Ousmani manam bind nga ba nga xamantene mom la daan bind ci loxom kon ñettel bi nga xamantene mom la ñu lim moy Ousmane Ibn Affan radiyallahu anhu wa ani sahabati ajmain ki nga xamne mom mo ñentel ci nga xamantene ne daan nañu bind wahyu bi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy Ubay ibn ka'b ibn qais al Ansari al khazraji Ubay ibn ka'b yakana kep ko xamantene da ngay gëstu lool ci alquranul karim xam nga ko mu nekk sahaba bu tedd boobee nga xamantene ne sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci mom ne ko ubay mu ne ko naam mu ne ko sa borom yàlla digal na ma pour ma jàng alquranul karim nga degluma ubay ne ko ndax yàlla daf ma tudd man mi tuddal la sama tour yonent bi ne ko daf la tudd tudd sa askan ndax teraanga sharaf gënta reey loolu rabbuna alkarim dal di tudd sa tour waye ne yonent yàlla muhammad arsalahu arsalahullah yàlla ne ko na jàng alquranul karim nga dal di koy déglu kon ubay bu naka العرب مموي نينتيل بي تي نيغا خامتيني نيوم نيو دون بيند وحي بي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي موم ابي امنا شرف بوكو يالا ديفال بوري موي اول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم بيونتبي عند قدومه المدينه بيونتبي نيوي المدينه المنوره كيكو نيك بيندال فوفي موموي ابي بن نكعب Eh, moom mooy sayidul qurra eh, moom nga xam ne tuufiya sanata 30 eh, ca atum fanweer ba ca la génne àdduna moom mooy ñeenteel ci ñi nga xam dañ leen di lim ci ñu doon bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yi juróomeel bi moom mooy zayd ibnu thabit al ansari al xazraji zayd ibnu thabit nga xamante ne dinañ ñëw ci kanam ci jamul quran al karim fi ahdi abi bakrin siddiq dinañ gis sharaf gi nga xamante ne moom la ko yàlla defal ci biir téere al quranul lan ci wax rek moy la waji waxone alquran ak kharit xam nga leele dañuy deg nan defal alquran sa kharit def ko sa kharit ñu bari duñu comprendre hikma bi ci mag ñi nam manam alquran ak kharit ñom ñoyem yem sa kharit nu ngeen gën di yag di and ngeen yag di tok rek ngay gën di xam ci ay ay ay ay secretem lu bare bari xam nga ñun bi nit do gis nit rek wala deg ko telephone rek nan ko man ma ngi dudd diw dekk diw amna problème sangam ma ngi judd sangam di limal say secret déet no gën di yag ak sa kharit di gën di toog ak moom di gën di waxtaan ak moom moom mooy tax nga xam ci moom ay secret mu la koy wax mathalan nit ki su fekkee bees euh, mu euh, ngeen daje rek moom daf lay naan ngi tudd diw sant diw dëkk sàngam pare ngeen ca ngeen gën di toog nga dem ba ci kanam laajaat ko mu ne la moo naa am naa soxna wala am naa doom wala am naa kër fii am naa kër fële man de nii laa toll ngay gën di xam ci moom li nga xam ne mooy ay secret waaye alxuraan su fekkee da nga ñëw ubbi ko dina la man de maa ngi tudd alxuraan waxu suñu borom laa pare na ca waaye soo ko ubbiwaatee nga daal di cay xamaat ngay ubbiwaat di a xamaat ngay di gën a xamaat parce que alquranul karim moom di ko gën di jàng di ko gën xamtu rek di ko xam lu ngay gën di xam ci moom ci ay secret lu bari la takun ghariban anil quranil karim bul tumuranke mukk ci kanamam su dut loolu yowmal qiyam alquran saa yu ñëwee di tànn ay nitam di leen xàmmee di nga taxaw alquran ne waa de jotuma koo xàmmee jotuñ ma ko présenté ca àdduna kon Zayd moom mooy juróomeel ci nga xamante ne ñun de mu bokk ci ña nga xam ne daan nañu bindal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii nga xamante ne moom mooy eh, wax ndaxte moom Zayd moom moo ëpp li mu mulaazama yonente bi sax moo ko ëpp lu mu takkoo yonente bi sax alayhi wa sallam ci bind alquranul karim ndax moom amutoon beneen métier waaw amutoon beneen métier kaana laa amala lahu gayra dalik la nekkoon métier mooy alquran wàcc mu bind ko <laughs> waaw laa ilaha illallah yaa lahu min sharafin azim ñoom fii la ñu toll nag alquran la nekkoon métier mooy alquran wàcc mu daal di koy bind wa li kathrati taatihi dalik xassahu albuxaari al imaamu albuxaari rahmatullahi alayhi soo demee ci téeréem sax daf koo jagleel tur boo xamante ne mu ne ko kaatibu nabi bindkatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo doon bindal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dund na ba moom mu ngi génne aduna atum xamsin wa arbain ñeen fukk ak juróom ca la Zayd ibn Thabit génn aduna kaleen juróom benneel mu nekkoon Muawiya ibn Abi Sufyan al Qurashi al Umawi moom mooy juróom-benneel bi nga xamante ne dañ koy lim ci ñi daan bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran rasmiyan nag officiellement ñi nga xamante ne ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu daan bind nga xam dañuy bind ba pare ñëw gaaral moom mu daal di koy xool lu ca dëng mu daal di koy eh, joyyanti mooy Muawiya ibn Abi Sufyan al Umawi eh, Muawiya nag daanaka soo xoolee ci baynal eh, madahib wala yi xew ci kuréel yi léeg wax yi daal di ci bari lool ca ñay saxal ak ñay weddil waaye lañ leen di mën a wax mooy bokk na ca ña daan bind te jotaay bi jotaay bu oh, gàtte la moom woy juram moom moo sàkk woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca fathu makka pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole ko ca ña nga xamante ne ñoom ñooy bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi boole woon ko ca ña bind moom mulaazam ma woon yonent bi di bind alquranul karim eh, moom muga nga génne aduna ca eh, atum eh, sittiin maanaam juróom benn fukki at ginnaaw ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay na parce que moom Muawiya daan bind alquran waaye daan na ci fi kitabati rasail wal uhudi wal uqud maanaam xaatim nga xam ne yonent bi daan na ko nas ci digganteem ak yenn état yi Muawiya léeg-léeg daan na ca daan na ca bind kon li sax mooy que ne daan na bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon haula sitta juróom benn yii mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon bind alquranul karim ci ñi xamante ne ñoom la ñu xam ñu doon ko bind rasmiyan manam ñu doon ko binde officiellement muy ndigal gu joggé ci yëne bi sallallahu alayhi wasallam lool nag tekkiwul ne kudul ñom ñi bindul alquranul karim ci sahaba yi ku melni ni abi bakrin sadiq daan na bind léeg-léeg omar ibnul xataab daan na bind ibnu mas'ud ak ku dul moom na bind waaye walakin haula ñii de dañ daan bind li anfusihim duna taklifin min annabi sallallahu alayhi wasallam dañ daan bind yóbbu ci seen kër yi kon tay ji loolu mom moy jotaayu asalafu ma alquran jotaay bi di ñu dugg ci ñi nga xamne ne ñoom daan nañu bind ci shuuni ar rasail wa kadhalika ar rasail ad daawiya balaa nuy ci al adawat allati kutiba alayha al waxyi juntukaay yi nga xamantene mom la sahaba yi amon ci seen jamono daan ci bind alquranul karim suñ ci agge ñun dinañ gëna xam coono yi sahaba yi daan daj pour bind alquran gi ben alif bañ ci yok ben alif du bañ ci manki ndax dina tax dongay ñu gëna gor gorlu xam xéewal bi leen yàlla defal ci alquran karim ci at yi ñu nek ma kana min sawabin fa min arrahmani wa ma kana min khata'in fa min nuqsaan salla al ilahu ala annabiyi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh L'eau multimédia moo leen di may seen émission Assalafou Mahal La société L'eau Multimédia a été fondée en 2011 sur la base de convictions et valeurs fortes. L'eau Multimédia est spécialisée dans la vente et la prestation des services en proposant une large gamme de matériels informatiques, bureautiques, électroniques, réseaux, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société L'eau Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois. L'eau Multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous. Téléphone 823 81 87 ou 77 998 04 04. Service commercial